li ñu xamoon ci nguur gu ut ay liggéeykat ñu liggéeyal ko mooy mu sàmm leen aar leen ba lenn du leen wokk waaye dara du leen xuri ñun jàngalekat nag mu mel ne dañ seppi ci tënk boobu nga xam ne yoon moo ko tënk ba tax na aar na gone yi aar goo xam ne benn jàngalekat amatoo sax xalaatu nee naa jubbanti sama ndongo bi ndax dafa jalgati bi ñenn ci ñun jóge ngir def loolu tax na dongo yu bari jëm ci kaw jàngalekat yi di leen bunduxataal di leen xoññañal àgg sax ci di leen dóor ak di leen xoj ngir faat seen bakkan te boobu ba léegi gisuñu nguuru senegaal ñu yëy yàbbi ci mbir mi lu ëpp nag day tuuru loolu moo tax ñun juróom-ñaari syndicat yi li ëpp ci jàngalekat yi tànn ñu ne na loolu dakk bu loolu amut nag ñun danañu jëlal suñu bopp suñuy matuwaay duñu xaar ba kenn ci ñun ñu faat bakkanam ñuy soog a jug ñaareelu tomb bi mooy dañoo signé woon ak nguuru senegaal ay tomb yoo xam ne mu ngi jëm ci lu jagal jàngale ak ci lu defar nekkinu jàngalekat ak képp kuy yëngatu ci biir njàng ak njàngale rawatina ñi ñuy tuddee ay inspecteur tomb yooyu biñ ko signé ak ñoom ba tey defaguñ ci lu bari duñu wax ne defuñ ci dara waaye liñ ci def mi ngi tolloog géej goo jël puso samp ko ca seppi ko la topp puso ba ca ndox lu tol ne loolu lañu def ci li ñu digoo woon ak ñoom yéen ñëpp yëg ngeen ni nguuru Sénégal dafa war a jël juróomi junniy jàngalekat yu yees mottalee ko yenn yenn barab yu manqué ay jàngalekat loolu ñu yëgal opinion publique nationale et internationale këne ci biir réew mi ak ci bitim réew ñun moom tànn boobu kaccet ñu ca ndax bañuy teg seeni tomb yi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku ngir tànn juróomi junni yi ñun yëguñu ñun tinuñu moo tax ñu woo képp kuy ab jàngalekat nga bokk ci G7 wala bokkoo ci waaye ngay ab jàngalekat ci ñu yëg lu talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci weer bu ñu jàngee ba juróom-ñeenti waxtu ci yor-yor nañu dëddu classe yi bisub àllarba moom di ñaar fukki fan ak ñett bu kenn teg sa tànk ca barabu jàngukaay ya ngir wan nguur gi ne li mu wax ne dafa amut lu mu faje soxlay jàngalekat yi ñun ñi ngi xel ñaar ci loolu ndax gis nañu ne mi ngi def alal ji feneen fu bokkul ak fi mu dige woon ak ñun te ñu signé woon ko ak moom